te dem rek. ñu ñaan rek te dem. jar na nit jóge Asie. jor jar na nit jóge Asie. jël avion jël avion. ñëw fii ñëw fii. ñu tëj rek te dem. ñu tëj rek tàggoo dem. rawatina nag. rawatina nag. gise bi gise bi. nemmee konte bi nemmee konte bi. mbégte mi mbégte mi. kon bis bi kon bis bi yaakaaru na. yaakaaru na. ñu am ci yéene nag ñu am ci yéene. ñaanal ci xayru xalqillah ñaanal ci xayru xalqillah sayyidina limaamulaahi al-mahdi yonentu yàlla ba moom la ñu jiital moom la ñu jiital ci ñaan gi ñu ñaan yàlla dolli leeram ñu ñaan yàlla dolli leeram yi dolli ram moom dolli ram moom ma moom mi yàlla dogal moom mi yàlla dogal moom mi yàlla dogal moom mi yàlla dogal mu gën ci mbindeef mu gën ci mbindeef yi fas aqu bay lay gën ci mbindeef kon ñaanal ko. ñaanal njabootam. ñaanal njabootam nga. jiitu ñëpp.